mafatih albishri walamni waljanna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba barke maam Cheikh Ibra Fall Lamp Baabul Muridiin mbokki juri ji mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax fii ci Mbàkke Kajoor ci kër Sëriñ Abdoul Aziz moo suñu Abdou Lahad Bara ñu feggoog euh, jàmbaaram gi Cheikh Abdou Lahad Mbacké Baye Fall di ko nuyu baax di ko jox wàccuwaayam di leen siyaara it yéen waa Bichri TV di siyaara sëriñ Moutalla gi ak ñi mu àndal ñëpp sëriñ <coughs> bi njëkki kàddu rek di leen sant di leen gërëm ci turu ay waay waajuram sëriñ Xaadim Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa baayam ak sëriñ Moussa Mbacké ak mboolem njaboot di sant képp ko xamante ne bi suñu borom yàlla dogal na nga teewoon ci bis bi ngi yàlla ji maamam Serigne Baara ndax yoonu murit nii rek la jëfe ndigal moytu ay tere loola ci lañuy sax moo sababu it lépp loo xamante ne bi warteef la ci bis ñu taxawee ko bu baax a baax fii ci Mbàkke Kajoor njabootu Serigne Touba gépp teew ci këram njabootu Maam Cheikh Ibra Fall gépp ñëpp ñëw Sëñ Abdoulaye Mbàkkeem sëñ Sirim Cheikh Laat teew na fi sëñ Babacar dem toog suñ ginnaaw nii sëñ maam Cheikh Fall mu si Mouride Laye Fall Ndar ak mboolem njabootu maam Cheikh Laye Fall gépp daayira bi nga xamante ne bii ñu ànd ak sëriñ ci liggéeyam ñoom itam ñoom ñëpp teew nañu kon sëriñ baa ngi sant rek di gënam bu baax a baax di ñaan bu baax sama borom yàlla ko fi ñëw rek yàlla faj say aajo te dooli sa wërsëg musal ci am ndox ak cat da nga xamante ne li nga bëgg liggéey suñu tool lépp dana mat noonu da nga xam ne moom la sëriñ bi baaxoo di ko defee mooy la Cheikh Ibra Fall waxoon rek alxuraan jëf ju baax lay tegtale jàngal nit ñi jëf ji dafa gën dinañ ko wax loola ci la sëriñ bi nekk mooy joxe gii mu joxe boppam ba mu jeex tàkk sëriñ Tuubaa gën ko lépp wàcce boppam ak garaatam yi ko suñu yàlla defal topp maam Cheikh Ibra Fall roy ko ci lépp nag muy ci taxawaay ak jëf ak lépp te loolee mooy yëlla ji loolee yi may maanaame yoon yu nag dañuy wax ne xamutu sant ab dox la xam waaye sëriñ bi de moom dox boobu nga xam ne moom la sëriñ Touba santaane ay guddee ma ki ba ci gam yëpp loolu ko jeexal kon loolu pas-pas la pas-seef la ak soññ la ci képp koo xamante ne bi suñu borom yàlla dogal ngay sàkk lu baax soo ko gisee royuwaay la ci yow noonu nag moom la ko sëriñ bëgge noonu it nag mooy Cheikh Ibra Fall bëgge kon sëriñ baa ngi di gërëm di ñaanal bokki fi teewoon yëpp di leen wax ne rek ku fi dikkoon rek ñaanal suñu bëri nga faj see aajo xolam seet na lool gërëm na ñëpp sant na ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah